jàngoon su ngeen mënee fexe ba noppi loolu loolu parce que baat baatu neex mhm. beneen ba ci des mooy day yàq baat yi di yàq maanaa yooyu tamit dafa bokk ci li nga xam ndax liggéey bu mag mhm. liggéey bu rafet ndax dafa am ñu ko mu yàggoon euh, loo xidmati ramma ramma mu ne xam nga ramma mooy sànni na mhm. ak ramma yéwénal na léegi nag bu ñëwee mu ne rama mu ne seetal lii rek xam nga kon li muy firi mooy sànni na ko mooy liggéey boo liggéey ba mu jeex nga sànni ko wàcc gis nga kon way dafa sew mm-hmm. te gis nga baat boobu li mu nekk sidda sidda lépp mm-hmm. soo demee ba ca catul daaneelu baxar ba mm-hmm. soo ko saddawut bu saddaa wala boo ko saddaa te fekk saddawut da ngay yàq baxaru da ngay yàq yëf yi da ngay yàq baxaru moom koy même boo jàngul majaalis bàyyi bàyyi seex nga dem ci nit ñi di leen laaj ñu di la waxal maanaam xasida gi boo ko bëggee jàng da ngay dem nit liiral la ko ba mu jeex xam ñu liiral la xasida gi nga xam ne da jàng bu parce que mi ngi mel ni sa Abo ni muy naa fi laa fi mhm. dafa def taxasus ci xiraa xiraa mooy mën nga mokkal alxuraan mais doo mën a jàng parce que doo man a doo mën a doo doo xamee imaala bi ak leneen bu la neexee da ngay jël warsa ba mu yàgg nga jël xafs mhm. te léegi ña ko doon solo ci yonent bi bokkuñ ba ñu wutal ko ay école mi ngi mel ni ngirum Malik ngirum Saafi ngirum nangam li ay sew sew la mhm. moo ko doon deflu sëñ ma Lamine Diop nag boo gisee ñi mu ko doon def la dañoo am xam-xam mhm. boo gisee sëñ ma Samba mënoon di maas léeg-léeg xasida guñ maasul mooy dafa am xam-xam mhm. day laaj nga xam elmul da ngay laaj naxu mooy benn nga xool ne euh, nga xool tey lu mel ni fu jiitu maanaam yàlla bett na ma mhm. wala fajatal yi yow de yàlla bettee nga ma loolu fi ne benn taa bi a leen xàjjale léegi soo amul xam-xam boo ñëwee mën nga koo maas noonu mën nga ko namas masque nit mu ne mm-hmm. fujji at mm-hmm. fujji at kooku jigéen ngay waxat ay sew sew la mm-hmm. moo tax masque mooy mooy mbubb mi nga xam ne comme ni nga solee sa garab bi masha Allah mu jàpp la nga sol sa weer yi sol sa koppati bi loolu mooy <laughs> dafa am lu ñu tuddee naxwu muy grammaire waaye dafa am leen lu ñu tuddee euh, sarf sarf sarf mooy li jàppal baat bi tëgg ko naan la loxo bi dafa gudd tànk bi dafa lii dangay ngay wàññi tànk wala da ngay wàññi loxo wala da ngay wàññi ndikk li moom moo lay jàppal loolu léegi nag nga soog a dikk nag ci almul balaaxa ak mu tënkoo ñetti xeeti xam-xam mhm. dafa am lu ñu tuddee almul maani mhm. almul maani mooy da lay wax baat bi jëmmi baat bi baat bi la lay wax beneen bi ci des mooy bu dee bu dee bu dee bu dee tey lu mel ni lu mel ni lu mel ni bayaan mhm. moom ju phrase bi la lay waxal est mooy phrase bi boo tegalee ay baat baat dafay am nom am nom dafay am lettre ba pare dafay am verbe maanaam dafay tënkoo araf ak ismu ak fi'l léegi nag ci biir baat yi tamit daf ci am baat yoo xam ne dafay nekk euh, jugé am yoo nekk de complement direct indirect ak euh, ak ak ak comme euh, melo comme man luy matale jëf ak faayil ak yu mel léegi nag loolu da nga koy xam ba pare mm-hmm. soog nag beneen xam-xam dikkaat mooy baat yan ngay tànn pour composer koo bi nga bëgg a wax. du du càgg nag da nga dégg arab parce que bi sëñ bi di bëgg a taalif bi ci misaal mhm. lan moo tax ci mat lawul xasida bi mooy bopp xasida bi mu tëb tëb rek tàmbalee ko busra la naa xat atanal juudu maanaam lu tax mu tàmm baat bisaara bi mhm. xam nga baatu bachara yu basiru tafsir mooy bégal na nit ñi yonent yàlla moo tudd mouhamadul basir mhm. léegi nag bi mu waxee amosu billahi min sara bis billahi min seytaani rajim bismillahi rahmani defut defut defut euh, euh, muxaddima maanaam wax ne xasida bi lii la ma ci niana defal yàlla nee comme lu daa wax ne maawi bu naafi de yàlla wax na ma ne bokk na ci xasida yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee jigéenu orun ay ni way yi ñuy wayal seen borom kër ya pour bëgg ñu bëgg xasida ak maawi bu naafi bokk na ci léegi kon loolu moo tax mu ne nag sëñ bi ko dañ lay dégg léeg-léeg mu ne dafa dégg malaaka di ko waxee noonu rek waaw moom itam noonu dama dégg malaaka yi di ko waxee noonu waaw mu ne malaaka yi la dégg ñu ko wayee noonu am na xasida yoo xam da ciy wax ba ba dama naan xëy na connexion doy na ci sëkk nga nekk ci kaw jamono am baatin waaye nag wax dëgg yàlla diggante asamaan mhm. ba dem arasa kursi yu moom nga naan sama xasida gi yàlla teg na ko ci kenooy aras ya euh, bokk ca ya nga xam ne tey ku fa dem fekk ko fa loolu moom kéemtaane kéemtaane la yoo xam ne yaakaar naa boo ko génnee ku mel ni moom ñi ko wax bariwut ci àdduna mhm. léegi nag lu tax busra la naa mu tëb tëb rek daal di indi rek busra la naa fi ne boo boo doon wax ak nit tey nga ne busra la naa rek wax nga li nga bëgg a wax mais dana laaj ne mais mais comme da nga wax ne ma am nañ mbégte ban mbégte ban mbégte. léegi nag jublu gi très bien loolu mooy li mu jubloo muxtadal xaal bi mu bi mu bëgg a def. maanaam li mu bëgg a def ak temps bi mu ko bëgg a defee. ak tamit nag bi ko yàlla waxee ne ko xasida bi danaa la ci defal nangam mu fexe ba tënk ko ci loo xam ne du gudd ba ëpp. du gàtt ba ëpp waaye wax ji it nag dana neex. day digg doomu daal léegi waaw day digg doomu mu tànn nag. baa di daan ne busra la naa daan ne xat atana joodu wal kon mbég mi mu daal lay bëgg a wax ne la xat atana baat bi mu defaat li bi nga xam da ko laaf ci al mooy mooy tab waaye wal karam ak teraanga ñaari baari fi ne ni mu ko laafee boo xoolee mhm. dañoo bokk ci ay melo la ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy junj waaye bokk ñoom ñaar waaye baat yi gën a rafet ba pare ci jamono léegi jii bu demoon tey jii ñuy def nasra al axbar mooy ni nga gis journaliste arab yi journaliste français yi di ko def mhm. maanaam arab yi ñuy làkk moom la sëñ Tuubaa di làkk looloo ci gën a yéeme maanaam ay arabam kaw kawewul mhm. sëñ tubaab dafa nanditi maanaam ah, sëñ tubaab dafa branche li soo doon wax ni ngi lu mel ni tey ni yónent bi mel alxuraan noonu la mel alxuraan dafa lakk ci wax boo xam ne mhm. wax bi maanaam wax bi du wax bu yàgg parce que fi ne boo demoon ci liy jàngale arab mhm. dafa am wax yoo xam ne arab yi waxatuñ ko kon loolu moo tax ñu naan yo yàlla du yónent du yónni yónent boo xam ne yónent kaw lay doon parce que li ngay wax day am taxaluf maanaam waxtu ne waxi sëñ tubaab ba pare sooy wax da ngay wax ak bi fi nga ba pare wax ji nit ki mën cee jariñu mm-hmm. mbindum sëñ Tuubaa nag soo gisee buñ ko waxee tey mu neex arab bi mën koo dégg képp mën koo dégg mooy dafa wax ci temps téeméeri at waaw ba pare ma tànn baat yi nga xam ne kenn mënatu ko weesu ba nëgë ni fi ne ci baat yooyu lañ tënk boo demee ci université yi lañ tënk daan ne lamastahalat alayna al asrur kon wax ji lépp li mu bëgg und mooy bi yàlla dogalee mu bind fukki weer ak ñaar mu tànn ci ñeenti weer yoo xam ne daf ko tudd as daf ko tuddee ashurul xurum mooy weer yi nga xam ne yàlla da ci arab nga xam ne ñu njëkk ñu sax dañu wax ne ci arab yi daawuñ ci tur der waaye bi naafiq yàggee te yónneewuñ leen ab yonent dañ daan dem ba changé ko léegi nag bi yonent bi dellusiwaatee lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko wanewaat la la ko jàngale waat ko kon daal di wax ne xusna mataban léegi yooyu bokk ci yi yim bëgg yi maanaam bi mu jëlee xasida gi tàmbali naa wooy waaye tàmbali naa tàmbali naa matérialiser xasida bi it yi ko tax di jóg xos naa mataaban ma yàlla su la bëggee jéggal daf lay xiirtal ci ngët ngët nga ne ko yàlla jéggal ma mm-hmm. léegi nag su bëggee nangu sag tuub fekk mayu la nga tuubal nga nga tuub nga sàkku tuub ci moom doo ko mën a tuubal macha allah léegi nag noonu la def ba daa mel ni bi ko yàlla mayee ne ko euh, may naa la nga nga nga nga sàkku njéggal ci man may naa la nga nga nga nga sàkku tuub ci man jërëjëf yàlla may ko ba nag mu ne xos naa mataaban mm-hmm. ma al xufraani fi rajabin te dañuy wax ne boo bëgg a dem ci yàlla mhm. ëtt bi lay njëkk a jéggi mhm. mooy martabat al istixfaar martabatul istixfaar boo ci jógee mhm. soog a dugg ci taw ba soo jógee ci taw ba soog a dugg nag ci maqaamatul yaqin yi maanaam nit ki day raxasu fóotu ba set wecc taxliya soog a nag tàmbali nag dugg nag ci taxliyaat yi loolu lu gudd loo xam ne waaye danañ wax rek tënk foofu rek ci misaal ne kon way way du rek dafa lay yomb rek nga daal tëb tëb rek way maanaam dafa jot ba noppi dafa neex arab boo demoon tey ci arab yi di leen ko jàngal ñoom seen jëm boobu danañ yëg ne ki doon woy lii ku la macha allah sëñ mm-hmm. Khadim ah, waaw euh, waaw euh, euh, danañ xam ni arab yi danañ xam ni ki doon woy lii mm-hmm. yàlla bariliwu ko kenn la ko am wallaay ndeysaan yonent bi alayhi am na lépp benn sëñ Tuubaa la am mm-hmm. yàlla nañ ko yàlla fayal amiin sëñ Khadim xam soxna Fat Bintu waaw xam nga fi mu ne dañu lay delloo kàddu gi waajal nag alaaji Moustapha Kane ndax war naa dugg si nag mm-hmm. maa ngi nuyu Serigne Ousseynou Mbaye mm-hmm. di invité d'honneur ak ñi mu àndal ñëpp nag di mm-hmm. suñu xarit di suñu wëllëre sañse yi rafet na ak ñi mu àndal ñëpp ndeysaan Ousseynou nit ku baax la dëkk ba ñuy wax New ca Amérique euh, état ba ñuy wax New Jersey moo fa taxawal daayirab Sëñ Touba est-ce que Moustapha keroog ba muy taxawal daayirab Sëñ Touba ba euh, man mii la woo keroog ñoo bokk taxawal daayira ba muy nit ku baax di taalib Cheikh Mamadou Fadal di nit ku yiw kon soxna Fat Bintou euh, alaaji Moustapha Kane dafa am gan ñu am solo ñu mu ëndaale sëñ Xaadim nag dafa bëgg a dafa bëgg a yolliku waaye mun a mënagul a yolliku ndax dafa am ay ay ay xeetu question yoo xamante ne bii mbooloo mi dañ ko yittewoo te dañu ko yónnee pour dañu ko yóbbante pour ñu jox la ko aussi mhm. ndax dañ ne ñaan moom mooy ngànnaayu jullit te gis nañ ñaani bis bi macha allah kenn ku ci nekk mën nga koo defal sa bopp te terewul da nga ciy am ay ngëneel waaye ban ñaan la ñu wax ndax am na yeneen façon ñaan yoo xamante ne bi jamono ji nit ñi ñu ngi koy def mu jaaxal leen ñu bëggoon a xam est-ce que ñaan yooyu aussi jarat na ko gannaaw bind nañ ñaan yoo xamante ne bi heure boo ko defee suñu borom defal la ngëneel rawatina ci weeru koor bi waaw euh, soxna ñaan dañu wax ne ki bëgg mhm. yàlla may la yaa xam si yitte noo ko ñaane baax na mhm. waaye bokk na ci ñaan gi gën a gaaw mooy fekk nit yàlla goo xam ne yàlla nangul na ko ñaan nga soxla li nga aajoo fekk ne lu mel noonu moom ñaan na ko pare nga jaar ci yoon mi ngi mel ni yoon wuñ xàll ba noppi jaar ci dafa gën a neex mhm. fekk fu ñu xàllul nga bëgg faa jaar moo tax soo gisee alquran rabbana yépp bu mhm. yónent mas a wax ci jamono boo xam ne xat-xat la yàlla nangul ko ñaan rek indi na ko ci alquran léegi nag yooyal la lañ dëppale ak ci guddi weeru koor yi mhm. wan la ne la tey jii de su fekkee dangaa bëgg dangaa ngaa julli julli gi nga toog ñaan ñaan gi suñu borom dan la nangul kon boobu day gën a gaaw fi mu ne. Mm, macha allah nit nag soo ne woon yaa Allahu yaa Latifu. Mm-hmm. rek yàlla dégg na la soo ne euh, soo ko waxee ci tubaab dégg na la soo ko waxee ci pël dégg naar dégg na la. Mm-hmm. Mm-hmm. loo ko wax dégg na la. waaye daf cee gën a baax. li la yàlla wax ne la soo ko waxee soo ma ci la mi ngi mel ni ki jàng fatiha ne yàlla yàlla na nga ko def yoolub jëf ji ci sama ci sama téereb baay wala sama téere jëfu yaay loola yàlla da ko koy defal ndax jëf ji mhm. jëf ju ne dafa am lu ñu tuddee anwaaru sawaab mhm. mooy leeruk tiyaabo du caagane yow li ngay wax mhm. euh, moo tax yàlla di wax ne udooni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen ndeysaan kon moom jigéen ne ku ko ñaan may la léegi nag kon jamono yi dañoo nekk jamono ñaan mooy weeru koor dafa bokk ci weer yi nga xam ne fépp foo wooree ba ngoon jot soo ñaane sunu borom nangu ko moo tax ñu ne bu jant bi sooyee dellu wax euh, allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala risqika aftarna faxfir la naa ma xaddam naa ma àq na te weer wi weeru njéggal la yërmande la ak njot ci sawara la te yet yooyu moom rek la nit di am ci àddina su fekkoon yàlla daf ne tey koor gi bi bi mu paasee nangul naa jullit ñëpp. te dugg nañ ci njéggal kon nit ñi dañ naan yàlla nañ dee dem aljanna parce que moo tax. mel dañoo ragal de. sëñ Xaadim nañ bàyyi ba ci kanam rek <laughs> nañ gudd fan bu baax. na ah, yàlla moom. ginnaaw uh, uh, uh, mënut a ñàkk ci jaam. neexut a ñeme yàlla na yàlla dogal ñun ñëpp ñu gudd fan. amiin waaw yàlla na yàlla dogal baax na lool. baax na dina tax nit du nekkon ay rëq-rëq sax man ko jubanti waaw sëñ Tuubaa daf ne ñaari fetal ak ñaari ngéem. lay wax nga deug sam ah. mhm. waaw. ñëpp fi ala fi dañ wax dañ wax ne dang ci togn fayu ci. ngok ngok waaw. kon nak euh, sohna Fat Bintu alaaji Maam Mor Mbaay yoonu gi. Mhm. ñu ngi ziar bu baax. Euh, ñi nga xamni tay tey nga euh, ca wàccaayu nuyu bu baax. ña nga madinatul munawwara ak mhm. makatal mukarrama ma ngi jot ay message nuyu wa New York jullit yu bare nga fay